mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullah bu GCB di jaajëfal Baye Assane Mesre video yi ma leen di bëgg a indil ñu ngi ko defoon ci euh, mois de mars 2018 gannaaw bi fi coowal politique indee woon li nga xam ne mooy lenn li ñu doon dégg ci tariixa yi ci entre yenn ci ay bojo bojo taalibe ndax du ma leen tuddee sax ay taalibe coow li am nag ngeen bàyyi xel ni duus yi ak mbàkke ak ñas lenn ci ay taalibe yu amul yar amul teggin lañu bëgg a indi fitna ci réew mi wala sax xëy na ay nit nekk ci seen ginnaaw ngemb leen waaye taqeewu ci laalewu ci benn sëriñ dinaa leen indil lenn ci ay éléments yoo xam ne dina firnde ni coow lii am amul benn yoon boo xam ne ab sëriñ ànd na ci ñu seetaan éléments yi tëddal si at maa ngi koy waxtaan ak sëriñ ab du duma bàyyi ma fenn ma ni ko man de Cheikh Ahmed Tijani lañ ma tudde ci tariqam laa nekk. waaye bare na lu may dox te muy farata te sama xaritu murit laa koy àndal waaw ma ne ko moo tax xuloo bi du sore xuloo bi du sore tijaan nga yaa ngeeg bokki murit yaa ngeeg xariti murit murit nga yaa ngeeg bokki tijaan yaa ngeeg xariti tijaan xaadir nga yaa ngeeg bokki murit yaa ngeeg bokki tijaan laa yéen nga la même chose waaw leneen looy def nag lu dul rafetal leneen looy def nag lu dul rafetal yi ci des yëpp caaxaan la Abdou juuf bi ñu ko ne Senghor dafay dem bàyyi ko fi ma jëkk ci Sëriñ Abdou Lahad ba Malick sedd la ci waaw mi ngi toog ma ni ko boot ko ma ni ko boot ko léegi lu ko may nit ñi def ci boppam ni ko tiijaan nga sunu réew mi tas ma ni ko boot ko léegi léegi léegi billaahi maa ko ko wax mu ni ma dinaa ko boot roggamti ko waaw ndax loolu laa xam waaw loolu laa xam tabarkalla tabarkalla ku ne xam na ni Ablaye Wade mii man nga joxe ya bopam ci Touba waye su ñewé ba ci man nima waxal xali ma leen jur ndax yow ba malik nak moy sama xarit kan waxu lo waxtu na waye moy sama xarit nag ayca magoog mbok yi eh, eh, seetaan nañ sëñ Cheikh Tidiane sal Maktoum ci cadeau am solo yooyu le dañuy dem and ak kon Serigne Sidi Makhtar mbake mom tamit ci ay cadeau yu ama ama am solo bu ñu dellusee amna ay yenen élément bu ci top yo xamni élément bobu bëgg na mbokk yi ngeen bayiko xel seetaan ko déglu ko ak xel dina am loo xam ne dinañu dinañu ko jariñ ñu dem jëli élément sëriñ si di Maxtaar Mbàkke kon xam ne suñu loxo ndeyjoor bi ak suñu loxo càmmoñ xam ne farata ak sunna loxo ndeyjoor bi càmmoñ xam ne farata ak sunna diine dong na ñor diine dong na ñor ak sunu yaari way ak sunu yaari way jur yi. ak sunu yaari waajur yi. muy Cheikhul Khadim. mu Cheikhul Khadim. dina El Hadj Malick. ak Sidi Hadj Malick. loolu rek nu ñor. mais loolu rek nu ñor. kon nag. kon nag loolu. loolu. ku bëgg tàggale. ku leen bëgg tàggale. yow yaay tàggoo dem yow yaay tàggoo dem fële. jërëjëf Sadio jërëjëf Sadio. nee na sëñ bi ne loolu rek moo ko ñor. ayca ñoo ko seetaandoo noonu Serigne euh, Sidi Makhtar Mbacke di ñaan yàlla mu yërëm ko te taas ñu ci barkeem yokk ay leeram bu baax a baax Mbacke Balla euh, ci noonu mu ko waxee am na solo ñu dem jëlee suñu élément bu mujj muy élément bu ama am solo bu mat a bàyyi xel yéen ñu koy dégg déggee leen ko fii kon ñu dem jël élément bi té del siwaat mbokk yi daaray sifaawun wa rahma ci njiital serigne cheikh fall di yëngu lepp lu jëm ci walu fajj ak faccal ak lepp lu jëm ci walu ñaan yalla ci alquran ak sunna ju set wécc yow mi góor tëtale ci négu sey wa daara daaray sifaawun ak serigne cheikh fall ñi ngi ceeg lu yéme sax lepp lu jëm ci listixaar tawatu yaram wala muy ay galankor yu nekk ci sa yaram jafé jafé keuyit ci biir réew mi ak biti réew ngeen man ko jot ci numéro whatsapp yi di afficher ci écran bi seen daaray sifaawun wa rahma ak serigne cheikh fall ñoo leen di may GCM jotaay bii nga xam ne jotaayu lislaam la jotaayu mag ñu baax la dama mas a dégg ci làmmiñu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz radiyallahu anhu mu ne booba mi ngi nekk ndaw maam Cheikh El Hadj Malick woote ne nañ ko wool mag ñëpp ca Tiwaawan nee na booba ndaw la bokk na ci ñu doon woote ñu woo jolof jolof yi ñu ñëw woo waalo waalo yi ñu ñëw benn jigéen rek boo ko fekk ñu koy wax mam buri ñang te maam Buri ndey la ci maam Cheikh El Hadj Malick ndax maam Ndiaga Fatim mi bokk ak maam Ousmane moo ko dëkkoo woon nee na jigéen jaa ngi sol benn tengaade ñëpp toog maam Cheikh El Hadj Malick waxtaan waxtaan waxtaan ba àggal daal ne li may tëje sama kàddu mooy maa ngi leen di yëgal bis nekki tey ba addunay tukki sama mbokk mi ñuy wax Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ku yëkkati kàddu gu ñaaw teg ko ci deram yaa boole sa bopp ci Malick Malick dañ ne ci ba addunay tukki léegi loolu ku dem ci téere bu ñuy wax aw li may wax damay indi ay référence awdaxul masalik fi taarifi bi manaqibi wa xayaati cheikh alhaj malik góor gi moo ko bind biographie moom alhaj malik 1980 81 la ko taalif li may wax ko dem danga ko ci fekk te maam cheikhul xadim loolu la wax ci maam alhaj malik xarit yi ma am yépp فيما تك على جمالك تقوم فكان وما اتخذت خليلا كنت أعرفه إلا جعلتك فوق الكل في رتبي حاج النبي وحنا كوليك لولا ندون شيخ الحاج عبد العزيز بمو يدم توبا دي سيتي سري محمد المصطفى مباكي بابا ندولة تي أت توبا بي بيني بني دف دني دف أن مرابو نومي عبد العزيز a effectué une visite à Touba lan la fa wuti won bo démé ba mu demee gisanteeg sëñ Mouhamadul Moustapha mu def fa ay fan mu téye ko yóbbu ko ci ay barab ne ko demal nga seeti diw demal nga seeti diw ba visite ba jeexee ci gàttal avant muy ñëw fekk na waa Jurbel def nañu rapport yónnee ko Thiès ñu yónnee ko bureau politique bu Ndar yéen ñëpp dégg ngeen góor gi waxal ko boppam ba mu demee Touba. ajjuma sëriñ Abdul Qadir radiyallahu anhu jiite mu liqaamal ko ba mu paree waxtaan wa mi ngi ci kase yi nee na bi mu paree dañ ko woolu mu dem bureau politique ndar wuy ci ànd ak góor gi Thierno Saïdou Nour sëñ Babacar yebal ko nee na bi mu dikkee tubaab bi dugg si fekk leen ñu toog mu nuyu góor gi Thierno Saïdou bañ a jox bañ a jox loxo Alaaji Abdu góor gi Thierno Saïdou ne ko nuyu ko mu ne ko du ma ko nuyu bokkul ci civilisation tubaab nuyu ko la nuyuwul yow la nuyu c'est son affaire mu xëcc chaise jox Thierno Seydou mu toog maam Thierno Seydou radiyallahu anhu góor gi xëccal boppam chaise toog mu ne ko waaw dañu dégg ñu ne danga demoon Touba loo fa wuti woon. góor gi góor gi ne ko dama lay laaj ndax bu fekkonte ne monseigneur ba nekk ca Dakar wala labbe ba nekk ca dakaar dafa ñëw taseeg bi nekk ci ndar ndax danga leen laaj lu ñu doon waxtaane nee na tubaab bi rus xonq cur kanam gi commencé soppeeku mu ne ko dama dégg ñu ne jox na la xaalis mu ne ko daga jugum li ma jox moo gën xaalis kaamilu jimbi lang la teg ci sama loxo muy waxi yàlla moo ma may fitu taabal dox sama digganteeg yow nga nekk fi représenté France ak li France symbolisé ci njubadi ak not doomu aadama yi lo loo waxta du deug ma teppi ko sànni ta do ci man dara kon ko babbi yag na tay tambali wul tay tabarakallah mag ñu bax ñi non lañ andé won lepp di rafet ma ngi fàttaliku ben yoon ñu nekk jag gor gui yabal ma ci serigne touré Thiès mu ne ma demal nga ma demal demal dem na nga fa dem nga ne ko na ma téléphoneel sama rakk sëriñ Saalixu Mbàkke ne ko namm naa ko alxemes danaa fa ñëw seet ko ma dem wax ko sëriñ Saalixu mu jël otoom ci saasi dal di dem wax ko sëriñ bi ñëwaat ne ko góor gi nee na mi ngi lay xaar ñu àgg Tuuba dem ca kër sëriñ Saalix mu bég lool kontaan lool ne ko daal nañu dem ca kër gu mag ga lay dalal ñu dem mu dalal ko ne ko nag fii ak delluwuloo tiwaawoon man tam duma dellu sama kër muy kenn dal lu neex loo xam ne képp ko ko fekke texe nga ñu togg añ yi macha allah mu ñëw sëriñ Saaliwu Ture di jaabante rek waaw sëriñ Saaliwu toog bi ñu añee ba noppi mu ne ko sëriñ Saaliwu indil gaz bi ak attaaya ji fii nga attaaya bu dul woon ak sedd bi jàpp bi mu jàpp samay loxo may atayal sama bop waye ki sama turandoo la sama jeurin la togal nga attaaya kaas bo xim tek ci sama loxo ma tek ci loxo ala jant yoy yep dund nañ ko kérok waxtan nañ fa waxtan wo xamne man yoron na sax ma ñoto fon jël ci lu bare bari waye xamna lama ci amul won digal motax mu reer ma <laughs> xam motax mu reer ba dañ doon wax ñom ñaar bay tay macha allah muy jaww ju neex keroog wax na fa ba tudd fa maamu sang bu tedd bi di suñu maam tafsir mubarak mi jur way juróom bu jigéen ak ni mu nekkee woon xaritam bi mu nekkee mbuur fa tabaarakallahu muy jotaay bu am solo fa la ñu nekk ba jullee fa tàkkusaan ànd ak góor gi mu dugg ci biir jumaay tuuba taxaw ci rawdu maam cheikhul xadim jàng fa sóoratu yaasin ñu tàggoo door a ñibbi kon mbokk yi mag. magoog mbokk yi cant ak ngërëm ñeel na leen ci bàyyi xel gi ngeen di bàyyi xel GCB ak ni ngeen ci jàppee ci liggéey bi jaajëfal na leen bu baax a baax a baax a baax lu jub ci waxtaan yàlla lañ koy sante lu dëng ci ñun ñi leen ndax ay doomu aadama rek lañ salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.